yaay chef de mission euh, activité bi nga xam ne moom mooy njàngum xasida bi sëñ bi moom moo ko woote teewaay Croix-Rouge dëgg-dëgg lan bëggoon a xam euh, ci ban dispositif ngeen jëloon waaw asalaamaaleykum ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci bi di gërëm suñu ñaari waaju di ñaanal aussi xalif général ku lu murid mu yàgg fi lool te wér di ñaanal sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke Fallilu mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak mbooleem jullit donc si di comme ni nga ko waxee dispositif bi ni mu demee mooy ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci suñu président Baye Mbaye Sall mu jaar ci son secrétaire général monsieur Mouhamadou Diop donc lettre bi ñu ñu indil dafa jóge ci euh, gouverneur de la région donc ñëw ci SG mu jox ma mu woowaan ko président président mbay Sall jox ñu ndigal pour ñu ñëw liggéey si fii li mu bind ci lettre bi moom mooy euh, cent cinquante éléments cent yu góor ak cinquante yu jigéen moom lañ mobiliser indi ko fii mais nag le MCD docteur Ndeye Maguette aussi contacté nañu Ah, jaar fi mu war a jaar donc wax ak président ak son secrétaire général pour à ce que ñu mën a ñëw fii tamit fekk si teewaay bi mu jaarle ko ci docteur Modou Fatou Diouf ah, mooy médecin chef bu 28. li ñu la mën a wax daal ci gàttal mooy dañ fi teew comme élément Croix-Rouge fu mënti am ci jéye wala ak lu mënti doon dañ faa war a teew pour intervenir à plus forte raison que ñun ñu nekk fii ci département bu Mbacké nga xam ne ñun ñoo lañ leen dékk lépp li nga xam ne moo jëm ci wàllu couverture médicale bu ñu amee ndigal rek dañuy daal di ñëw liggéey comme ni ñu ko a liggéeyee. voilà dafa mel ni liggéey bi tey na comme d'habitude mais ku ne croix rouge moom xam ne lépp lu yomb du fi am cun luy baax la amul ruq bu sedd donc euh, am nañu habitude ñëw di def lu mel nii euh, yàgg na trop ñu fekkoon fi suñu ay grand yoo xam ne ñoom ñu ci lañ leen fekkoon ñu ciy yëngu ku mel ni Aliou Dia sëñ Modou kase baay faal su ma ko waxee rek daanaka dinañ yóbbaale Pala sekk ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo fi mës a jaar ñëpp ak Abo Ndiaye donc euh, ci loolu la ñuy yar ñun ñëpp. ñu màgg ci loolu nekk ci ba tey ñu nekk ci ak suñu ay rakk nekk ak ñoom aussi di ñaan yàlla continuer ak ñoom ah ba lu yàlla def rek ñu xam ne loolu la te yàlla na yeex. léegi boobaak léegi euh, li ngeen fi évacué. Euh, hmm. ci hmm. ne ci hmm. euh, waaw bëri trop Sidi parce que fi mu toll nii ci xayma rek xëy na nag rapport mi ngi fële ci bili mais après dañ koy récupérer parce que am na ku chargé wu ku ñu évacué indi mu bind ko bu ñu paree dañuy tirer rapport defar ko. yóbbu ko jox ko SG mu jox ko président bay Sall président bay Sall jàllale ko au niveau national donc médecin chef bi aussi day am benn mais ci xayma am ëpp na 60 personnes yoo xam ne évacué nañ leen ci suba ak léegi parce que 6 heures la ñu convoqué woon bon 6 heures ñu ngi ci yoon bi di ñëw 7 heures fi la ñu fekk ñu def euh, bi ñëwee daanaka fekkuñ fi ñu bëri donc tas nañ suñu équipe yëpp comme ni ñu ko waxee woon ñoomit it ni ñu bëggee woon liggéey bi doxee noonu ñoom ñi jiite wàllu kër docteur bi ko MCD bi waxee Modou Fatou Diouf mu wàcc si ci ñun ñu am ci ndigalu croix rouge ñëw di ko doxalee noonu. Euh, ci boobaak léegi euh, tamit yéen ci biir jumaa ji. di mm-hmm. sillonné. Mm-hmm. Mm-hmm. ak équipe euh, ak kuréelu jumaa ji tamit gis nañ ne maanaam macha allah. macha allah am na ci tam moo ci war a am. ndax ñun ñëpp ay taalibe lañ te ñun ñëpp liggéey ak luy defar moo ñu indi. sëñ Moxtaar bi ma dajeeg moom laa fi jot a waxtaanal nag tey ci suba waxtaan nañu am na lu bari lu ñu échangeante man ak moom mu dolli ma lu am yu ma xelal man ma dolli ko lu ma ko xelal ñu boole lépp tënk daal di jëfe loolu mais daal nañu xam toujours ne ñoom ñi ne ci jumaa jeeg ñi ne ci biti ñëpp donte xëy na tenue croix rouge la ñu sol mais ay taalibe lañu aussi comme ñoom te mission croix rouge même boo nekkee faneen nga bokk tamit boo ñëwee charte yi nga xam ne moom lañ la sant muy liggéey sans discrimination amul xar làqoo amul dara lépp ñëpp ngay yemale képp kuy noyyu rek da nga koy jël da ngay jël ci moom référence boo boo xam ne da koy defal li nga xam ne moom la yelloo di tolloog li nga mën nga jël ko ba jëbal ko kër docteur jox leen ko ñu mën a eggali ci wax ne ñoom yëpp dañ gën dal rek ñu xam ne ñun ak ñoom benn lañ ñoom dañuy defar ñun ñu tamit dañuy defar léeg-léeg sax ñu rapproché ñu ci dàll wala yooyu mais i faut ñu comprendre ñu ndaxte léegi léegi nii rek lañ ñu woo am ku waroon dem Matlaboul Fawzeyni ci hôpital ba médecin bi fi nekk bu ñu wooyee nañu dañ ko war a yóbbu am na ñoo xam ne bi ñu solul dàll daanaka pour ñu yóbbu malade bi fële problème kon nañ ñu dimbale suñu dàll yi soluñu ko ngir euh, xamadi wala dara gëm nañ sëñ Touba comme ñoom man sëñ Abdoulaye lañ ma tuddee sëñ Abdou Karim Mbacke mooy sama sëriñ waaye bu fekkee ne sëriñ su mag si wala ñi fi nekk toléré nañ ko ñu sol daal di dem ak ñëw ñoom it nañ ñu dimbale rek vraiment ñu xam ne du dara bu ñuy ziare si dañu sumi suñ daal yi teg ko fa la ñëw waaw neexul nag ñun ñëpp ay murid lañ waaye nañ ñu comprendre rek.